Elhadji Ousseynou Ndiaye leen ak jàmm ci xibaar yi yi nga xam ne rek moom la ñu ñu daal door sur saa du ñu xamal ne jàngoro covid 19 a jàngoro ji ne muy doxee gaaw na lool am na juróomi nit ñoo xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan ci ñaari fan yéen du ñu xamal ne ak lu mel ne xew daal jamono ji lu tollook daanaka ayubés am na lu toll ci eh, fukk ak juróom-ñett yoo xam ne rek ak juróom-benn yoo xam ne itam jot nañoo amee jàngoro ji nag moom la moo ci des bal ci kaam fekk jamono jojee l'observateur les échos enquête di ñu xamal ne am na benn commission boo xam ne rek jamono ji nee daal ñoom dañuy def ab rapport daal di ko jébbal xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci wàllu màggal gi yéene gi du xamal ne xoolal ñooñee kay ay docteur lañ ca la bokk docteur Abdou Aziz Mbacké moom kay ca la bokk ak ki nga xam ne moom moo di docteur Cheikh Soxna yéene kaay gi du ñu xamal ne ñoom kay seen rapport yooyee dañ kaa jëmale ci màggalu daal danañu def ak rapport daal di koy jébbal ki nga xam ne rek moo di xalif général des mourides nee ma Serigne Mountakha Bassirou Mbacké waaye nag kàddu gu mujj gi moom Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mooy xool la ca war rek mu daal di koy def yéene kaay gi duñu xamal lu jëm ci élection locale yi nga xam ne rek war nañu ko amal jamono ji nag danañu ko toxal yéene kaay gi duñu xamal maanaam daal xoolal daanaka rek juróom-ñaari weer boobaak léegi boo

rek ñoo nekkee ci kujje gi yéenekaay gi di nga xam ne ñoom kay kañu tànn teg ko seen bopp teg ko seen kanam moo di kii nga xam ne rek moo di Idrissa Seck ndee ma naamal Kajoor borom nel bi yéenekaay gi du ñu xam ne moom kay jamono ji moom la ñu bëgg a teg ca kanam waaye nag Ousmane Sonko moom la mu gis moo di kii nga xam ne rek moo di njiitu réew ma fi nekkoon di Abdoulaye Wade Dara Wade Ndiack Dara Wade Ndiack yéenekaay gi du ñu xam ne moom kay nee na moom moomee moo ca jekk fekk jamono jojee lii yéenekaay yi du ñu xam ne maanaam daal maanaam daal xaw na leen kuntaaba jafe-jafe gu metti goo xam ne ñi ngi koy jànkoonteel yéenekaay gi du ñu xam ne ñeen fukk ci ay millions yi nga xam ne rek dañ leen ko doon jàppale jamono ji njiitu réew dafa mel ni nag leen xooj teg loxoom teg dànkam yéen gi du ñu mbir meme noonu la demee ka ñu dëgg te ñoo bàyyi boobaak léegi moo di France yéen gi di l'Observateur ne Sénégal kay gi du ñu ne maanaam daal ñi nga xam ne rek seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu koom-koom ak yu ni mel kàddu yi nga xam ne rek yëkkati nañ ko ñoom kay dañuy xam ne ne réewum Sénégal jamono ji dina jafe lool ñu mën a demal seen bopp wàllum koom-koom am moo xam ne daanaka lu bëri France moo ko yor ñu la bàyyee da nga yàq fekk jamono joojee l'observateur yéen i kaay duñu xamal ne lu doy waar kay xew na ca Ziguinchor yéen i kaay gi duñu xamal ne benn directeur d'école moo dem kër rakkam ju jigéen daa di xaru faatu ñàkk bakkanam mu nekk nag lu doy waar loolu nag lu doy waar la waaye man tamit ma dem ci Ariel Cheny bi la mu wax nga ni Ariel nga ne koy woy laay léele la ay ca Elisandoy borom London borom dàll un million bi woo naa la ci lii ah jaa ngeen jëf. El Hadji Ousseynou Ndiaye.